وشق له من اسمه لجله فذو العرش محمود وهذا محمد تغذي به ناقة asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokku jullit yi mbokku taalibe yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di jiital ci nuyoo bi ak ziar yi kilifa diine yi kilifa aada yi di ko jiital ci kilifa gi ñi nga xam ne moo nekk fii ci Medina baay di Cheikh Maay nekk xalif général de la Fayda Tijaaniya fii ci Medina Baye Niass euh, comme ni ngeen ko baaxoo di àndeek ñun saa su nekk rek depuis euh, bi ñu amalee wàccaayu gàmm gi ba léegi ngeen ànd ceeg Nasru TV ñu àndoon ak yéen ñëw fii ci Medina Baye Baye Niass ci wàccaayu gàmm gi mawlud bi ànd koog yéen ginnaaw loole ñu ñëw ci gàmm gi ba gàmmuwaat itam nekkoon démb euh, tey jii nag di altine 23 septembre 2024 ñoo ngi waat fii ci jumaa Medina baay bi bu ngeen gisee sama ginnaaw xam ne ñoo ngi fii ci Medina Baye lépp rek ngir defar leen li nga xam ne mooy résumé li fi jot a jaar muy li nga xam ne événement yu rëy yi muy gàmm gi wàccaay bi ba ci gàmm gi ba gàmmuwaat démb ngeen ànd koog ñun dund ko fii ci Nasrou TV di télé bu mag bi euh, yéene àndaat ak yéen incha allah rabbi ginnaaw bi ñu jaajëfalee ñëpp ci topp gi ak safoo gi nga xam ne amal nañu ko ci Nasru TV fas yéene nañu àndaat ak yéen dégtal leen dékk ay micro dëkk micro ñenn ci ñi nga xam ne ñooy taalibe yi féetee fii ci Medina Baye ñu wax ñu seen yëg-yëg ci gàmm gi nga xam ne dund nañu ko dund ko ci gàmmuwaat gi waaye ngeen gi sama ginnaaw nii ñu ngi fii ci barabu ki nga xam ne mooy Mawlana Cheikhul Islam nit ñaa ngi ziar depuis boobu léegi gàmm gi mel na ni démb la woon ci Medina Baye di taataan euh, xéewal yi ak li nga xam ne tey moo fi am ci Medina Baye kon dañu leen koy dégtal rek incha allah rabbi ngeen topp ñu fii ci nax Nasru TV télé bi ñëw ngi leeral lépp waaye gën a jege askan bi dañ leen ànd ak yéen dégtal leen dékk suñuy micro laajtee ñi nga xam ne ñooy taalibe yi yëg-yëg bi nga xam ne am nañ ko ci gàmm gi ba gàmmuwaat waaye ci Medina Baye ñas incha allah rabbi topp leen ñu ñu ànd ak yéen ci kanam tuuti. sëriñ bi maa ngi lay ziar. ñu ngi lay delloo ziar sëriñ bi. nga fàttali ñuy seetaan tur bi. alhamdulilah lañ tudd. Oustaz Pape Malick Sy. Oustaz nuyu nañu la ginnaaw bi ñu la nuyoo ñu fekkale fii ci jumaa ji ki nga xam ne mooy Maulana Cheikhul Islam nga di ziar mën nga ñuy wax sa yëg-yëg ak ginnaaw gàmm gi nga xam ne dugg nañu ci jàmm ñëwaat ba gàmmuwaat ba tey jii euh, di euh, bis bi nga xam ne gàmm nañ ci suba gàmmuwaat gi ban yëg-yëg nga am fekk ci nañ li aussi wax ñu aussi li nga xam ne mooy euh, li la tax a ñëw fii ci jumaa ji ci rawdu bi fas yéene def sa ziar. alhamdulilah rabbil alamin wasallam ala mawlana rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man walahu wa sallama taslima yaa himmata cheikhi uxdur lana bi hada almahdari wal taati fihi bi nazaratin taati lana bi safar ñu ngi leen di ndokkeel bu baax alhamdulilahi yaqulu alxaqa falbudulu yashaqu fa saqan saqa suma salaatu wa salaamu ala alladi man faadat bihi al aqwaamu wa dalla aqruna hiinamaanu wa zulzilu iskazabu wa qaanu wa alihi wa sahbihi al allaami alqaayidi alxalqi ila al islaami wa baadu fal maqsuudu bi mi nazimi taksibu kullu muftarin mi ñu ngi leen di ndokkeel bu baax di nuyu télé bi ak yow mi nga xam ne yaa ngi introsé ci tele bi ñu ngi sant yàlla bu baax ci weer wi nga xam ne moom lañ nekk muy weeru sahru rabiul awal muy weer wi nga xam ne moom la yàlla jël ndokkalee ko yonentu yàlla muhammad weer woowu la yàlla jël jël bés yeeg heure yi ak waxtu yëpp ndokkalee ko yonentu yàlla muhammad yonent yàlla Muhammad moomu nag ki tax ñu jot ci mooy Mawlana Cheikh Ibrahim moom ngeen ñu fekk ci raw doom ñu koy ziyaara parce que dafa am ziyaara boo xam ne ziyaara istimdaad la ak ziyaara tabarruk ziyaara istimdaad mooy ziyaara pour nga yokk Mawlana Cheikh Ibrahim képp koo xam ne nii ziyaara nga ko ci weer wi war ngaa yokk parce que ne na bés boo xamante ni def nañ gàmmu ren ba gàmmu gi passé mu ne déwén balaa ngay ñëw na fekk nga yëg ne daaw yokk woon nga ci gàmmu gi ñu ne ko luy loolu Mawlana Cheikh Ibrahim bind ne wa xaq yey na tarjimuhu ba ñu mandargaal yonentu yàlla Muhammad fii kulli xirtaasin ci mboolem feu yi te loolu bu fekkee ne Baye da ko wax ñi jël feu yi ci mbedd mi rek fu ñu jot bind Muhammad rek dana soof. danay wax ne ñii moom romb nañ nit. te lu romb nit rek nekk malaaka wala dof te nit mooy li gën ci li yàlla kon Maulana Cheikh Ibrahim bu ne bu ñu gàmmoo ba pare ci ren jii balaa déwén war ngaa mën a yëg ne gàmmu nañ. lu tax nga yëg na gàmmu mooy mooy da nga am ndollal ci yonentu yàlla Muhammad yonentu yàlla Muhammad moomu la ñuy ziyaara moom la ñuy ndokkeel ci weer wii waaye nag ci buntu Mawlana Cheikh Ibrahim ndax Baye toog na fii ci Madina Cheikh Ibrahim wax ci wolof ñëpp dégg ko mu ne yàlla buntam bi mooy yonentu yàlla Muhammad waaye jàmbu xeebu bii ngeen di gis mooy buntam yonentu yàlla Muhammad loolu ko ci man dara waaye walim la ah. ayni ayni waa walim la ayni al yawma aynu Muhammadin walim la ayni ayni aynu muhammadin sara sirluhu fi haykali warwaay bàyyi mu ne walim la aynil yawma pourquoi ba sama jëmm ji tey nekk ay aynu muhammadin di jëmm yonent yàlla muhammad sara sirluhu fi haykali warwaay koo xam ne moo daw ci sama lépp ci sama haykal bi mooy ci sama jëmm ji warwaay ak sama lef kooku bu fekkee na zaahir rek la ki toog fee weddi Mawlana Cheikh Ibrahima mënu koo gëm. waaye dëgg la parce que yonentu yàlla moo xam man rek moom moo xam askan bu dëgër bi muy askanu yàlla bi. askanu yàlla bi lan la mooy yàlla moom rek moo xam yaram. tey may ñëpp yaram yàlla moom rek moo xam xol ji may ñëpp xol. yàlla moo xam nafsu di may ñëpp nafsu waaye yàlla moo xam ruuxu di may ñëpp ruuxu. ba pare taxaw fi naan maa yàlla jaami di jaam. gis nga wax bi. léegi kon loolu naxe la. Mm-hmm. yàlla moomu. moom la ñuy jaamu ci yonentu yàlla Muhammad ndax jaamu yàlla te si lu dul yonentu yàlla Muhammad moom mënul nekk. jaamu yàlla ci lu dul yonentu yàlla Muhammad tu nekk kon bonus bi ñëw na. mooy li nga laajte mooy weer wi. weer wi bonus la lépp lu ci waay def. da ko gis. weeru tawféex la. weeru tawféex la. njëkkante la njëkkante la. nañ ci ziare yonentu yàlla Muhammad waaye nag. ziar koo xam. Mm-hmm. nañ lijjanti kan mooy yonent yàlla Muhammad ba pare. yonent yàlla Muhammad mi nga xamante ni moom la dafa jaraloon bàyyi jarala jarala jaral ba nga xam ne moom amul yemul ca kenn. Mm-hmm. ci bëgg yonent yàlla Muhammad ba nga xam ne boo demee ci wëyam yëpp bari na bari na lu nit mën a wax ci yonent yàlla Muhammad li ci bàyyi wax mu jël temps bu bëree waaye daal ñu ngi leen di ndokkeel di leen wax ne ñu ngi ci weeru yonent bi na ci ñëpp bénéfice wu ci buntam bi nga xam ne mooy Mawlana Cheikh Ibrahim te comme ni mu ko waxee woon sànq leen di ndokkeel bu baax ñu leen di ziar alhamdulilah wa dawaana jërëjëf ñu ngi ndokkeel waa jàmm rek yéen jàmm rek ngeen am jàmm rek incha allahu taala kontaan si man maa ngi tudd Adja Khady Niass. Adja waaw. ñu fekk la fii ci rawdu Mawlana Cheikh al Islam da ngeen doon ziare dañ doon ziare si suñu maam Cheikh al mu tedd mi Cheikh al moom moo samp Medina Baye daa jóge fale ci sàmm ñëw fekk ñëpp tey seeni paan mu samp bant ba ñëpp tur seeni ndox mu ne dëkk bi mu ngi tudd Medina Baye waaw te dama leen ni présenté sama rek mu ngi tudd maam Zeynabou ñas moom mu ngi juddoo fële ci Dakar suñu papa tudd Cheikh Siraju Dinas suñu yaay tudd Ndey Adama Lay Ba léegi nag dañ kaa indi woon pour ñu taril ñu alquraanu mu tedd mi a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim qaala عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قولا حق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من دون سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق الله العظيم maa ngi lay ziar yaa Seyda. maa ngi delloo ziar. nga ñu fàttali tur. Absa Ndiaye laa tudd. Absa foo dëkk fii Kaolack. déedéet Dakar laa dëkk. Dakar da nga ñëwoon ci gàmm gi. maa ñëwoon ci gàmmuwaat bi. naka nga dundee gàmmuwaat gi. am mbégte bu rëy rek. Hmm. mbégte bu rëy lool sax. macha allah am na commencement waaye amul fu jeexee mun maa wax si Baye Niass sax. wallaay ginnaaw gàmmuwaat gi tey fekk nañ la fii nga xam ne mooy Rawdu Mawlana Mawlana Cheikhul Islam ngay ñëw di ziare si. waaw damaa ñëwoon pour ziare Mawlana mhm. allah lan nga yëg ci ziare bi nga ñëwee. wallaay mënu ma ko wax sax. billaay mënu ma ko wax sax. mu mel ni sa bëri daa fi mu tol ni comme ni nga waxee mënoo wax ci Mawlana Cheikhul Islam. waaye nga wax ñu ci moom tuur rek. <laughs> billaay mënu maa wax ci Mawlana Seex al Islaam billaay waaye daal am nga mbégte ci gàmm gi li tax nga jógee Ndakaaru ñëw ba fii yëg nga ko wallaay yëg naa ko lool mhm. yëg naa ko lool sax lan ngay ñaanal senegal ak ñi nga xam ne ñoo ngi lay seetaan Sénégal am ñëpp am jàmm am ñëpp am jàmm nawet bu barkeel dëkk bi neex yàlla def si ñëpp jàmm yàlla dàqal ñu seytaane dàqal ko mbooleem jullit yàlla gën ñu xeet ci boppam yàlla nañ yàlla gën a xeet ci Mawlana Seex al jërëjëf ñu jaajëfal la. sëriñ bi maa ngi lay ziar. yal na yàlla nangu ziar. nga fàttali ñuy seetaan tur bi. Pape Demba Thiam. Pape Demba Thiam. waaw tey ñu fekk la fii ci jumaa ci raw du rawdu Maulana Cheikhul Islam tey balaa ñoo dugg ci ziar bi nga ziare ci woon waaye ban yëg-yëg nga ñuy wax ci gàmmuwaat gi nga xam ne eh, am na démb mu nekk loo xam ne yaakaar naa bépp taalibe kontaan na ci ni gàmmu gi déroulé. waaw asalaamaaleykum ñu ngi nuyu ñëpp di leen Euh, di leen ñaanal yàlla di ko sàkku ci yéen di leen ndokkeel bu baax si gàmmu gi ak gàmmuwaat bi vraiment amuñ ci lu dul mbégte ak kontaante ak euh, xam ne gàmmu gi moom yokkute rek la yokkute rek la macha allah ñu ngi ñaan yàlla mu may ñi ñi fekke ko ay ati ati at yàlla nangul ñëpp seen gàmmu nangul ñëpp seeni ziyaara ak seeni ñaan di ñaan yàlla mu saxal ñu ci faydu baay bi saxal ñu ci tarixa bi waaye saxal ñu ci diine lislaam bi ñaan yàlla Baay Ñas nangul ñi suñu taalibe nangul ñi suñu xitma nangul ñi suñuy ñaan ci bërëb bu sell bi nga ñëw tey ziare ci dangay ngay soog di ziare ci tey ndax mu xaw a af tuuti wala da ñëwaat pour defaat sa ziar. waaw damaa ñëwaat pour def sama ziyaare parce que man sama gàmmu yëpp fii fii laa koy defee Medina Baay ndax euh, yàlla dafa def ñun euh, yàlla def ñu ay taalibe Baay euh, ba tax na ñun gàmm fu mu jotee rek dañuy bëgg a ñëw ci bërëb bi pour sàkku fi barke ak xam-xam ak yokkute te am nañ yaakaar ne am nañ ko macha allah ndaxte gàmmu gi moom a chaque fois rek de yokkute rek lañ ciy gis. ak avancement. kon nga hmm. bàyyee koo Kaolack nga dëkk wala dafa am feneen foo jógee ñëw gàmmu si comme gàmmu international la. ah man maa ngi dëkk ba Dakar Dakar laa jógee waa. Hmm. jërëjëf jaajëfal nañ waaw ñu ngi leen di jaajëfal bu baax macha allah jërëjëf. ismi Mouhamed Mansour Niass tilmis fi maa tahfidul Qur'aan al-Kariim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 إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب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 فذو العرش محمود وهذا محمد تغذي به ناقة